salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet ñu nu leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen bu wér a ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan waaye dawlu suñu borom yërëm leen saxaar leen ci àjjanay firdawsiya ñu feebar tëdd ci hôpital yi ci kër yàlla na suñu borom fëgg seen bopp rawatina ñu caabi féetee ginnaaw yàlla na suñu borom may leen libéré chambre in ba fi mu yem na rawatina waa Cap Manuel chambre 15 maa di bëggee bu baax baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér tey nag ñu ñëw fekk si fi champ un grand champion Diarra salaamaaleykum sama gaay waa mafia bi maa leen siyaar bu baax a baax ah di leen nuyu di leen jox seen waaco waay euh, di nuyu ñu ma fi dalal ku si mel ni Pape Seck ba ne ak gaay mafia bi yëpp waaye ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di nuyu waa Pikine bu baax ku nekk di la jox sa waaco waay bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf dañ la gëj a gis parce que combat ak Alboury taxaw dañ lay soo gis. waaw maanaam fu jëf war a ne wax amu fa njariñ te man tollu moo fu may waxee nii damaa war a jëf waaw. fi mu toll nii waaw ma wax la. non man euh, fi mu toll nii dama ne bu jëf taxawee da ngay jëf ba pare soo ko wax Alboury soo ko neexee na wax waaw man damay xaar ba jëf ba bu jëf jotee ma ma jëf li ma war a. day wax day jëf. waaw mais bu bis boobu boobaa jëfam dina ko reer incha allahu rabbi. la 26 jëfam. bu la 26 jotee. jëfam dina ko reer kon nga wékk ne bu la 26 Alboury jëfam dina ko waaw ci li ma liggéey ci laa ko wékk ak li ma xam ak li ma mën. waaw amaana làmb téré di rek maanaam boo ñëwee fii ñu naan la yaag arbre nii nii yaag arbre yi amaana làmb moo téré di quoi ni mu fa demee la quoi xam li ma la wax ndax man amaana ñu woon yoon keroog maa ngi gis mu ni ciblé ciblé woon naa feneen quoi. moom mu ne woon na feneen. waaw kañ man tamit damaa ciblé woon feneen. amaana Alboury maguma ko si làmb Alboury ku ne boo nee bëre nga neuf te sa deux derniers combats laa man laa mën a duut sama baaram seetaan. deux derniers combats am laa seetaan moom laa mën a duut sama baaraam ni yii seetaan naa ko xam nga a wax boobu laa ko xam kon wa waaw mais yooyu seetaan seetaanu ma ko man seetaanu ma ko neuf combats yooyu bëreewu ko ci deux ans bëreewu ko ci trois ans kon xam nga yàgg na bëre xam nga li ma la wax maanaam amaana man bi may dugg ci làmb maanaam dañ ma dañ ma fekk si écurie ki ma defaral licence ma fekk ak ki nga xamee ne wallaahi azim buubu cas ki moo ma jàngal bëre munu ko woon daan bi mu fee mujj munu ma woon dara ci moom moo ñu mën ñun ñëpp mu ñëwaat fa fekkaat ñu ñuy bëre mag moom lu méttee métti dañuy buñ dee contact sax nit ñi ñuy contact dañuy toog dañuy seetaan man ak moom ndax bëre bu neex munu ma yow il est temps que ndax kii day toj ci àll bi day toj arène bi il est temps que nag ma lijjanti la licence nga bëre ma ne ko man maa seen ginaaw rek mooy loolu noonu maanaam bi may dugg si làmb li ma xam sax bariwul mais fi mu toll nii làmb dafa jot quoi a dafa jot pour ma lamb fi mu toll nii quoi. te at diggante ak nga fas yéene kon daawoon làmb. non dama dinaa làmb ak su bis boobaa bu ma dugg see ci làmb ji dina xam dina ko damay làmb quoi waaw. jara de gisuñ ko gis ba bërki dem ma laaj la nga ne ma Alboury lu tooli bari bari bari bu arbitre sifflé la lay xam. waaw xamaa ne amaana ñu bëri dañ ma umpale ca làmb ji dama bëgg loolu deñ xam nga ñu bëri dañoo umpale jara. dañ ko umpale si lan. ci lu bëri ci lu bëree bëri bëri te amaana loolu dina feeñ ci làmb ji incha allahu rabbi maanaam Alboury champion la maanaam moom li muy nëbbu dama koy feeñal. Alboury dafa lu muy nëbbu. waaw kañ muy lan maanaam li muy nëbbu. Alboury maanaam moom li muy nëbbu. man dama koy feeñal. li muy nëbbu noonu mooy lan. maanaam maanaam loolu noo doo dem ci di di xeexi di génn say arme. Alboury day xeex day bëri. waa léegi nag loolu code la bu bu bu boobaa code boobu mu côté woon dinaa ko décoder. kon Alboury dafa am fu mu côté foofu da nga war a décoder. waaw kañ code boobu dama koy décoder incha allahu rabbi. maanaam man man man maanaam maanaam lamb ji maanaam Alboury jëluma ko sax pour ay maanaam ay Alboury nii nii nii champion laa jël. bërëkat laa jël. ndaanaan laa jël. ndax ku mën a duut sa euh, euh, neuf combat nga ni am nga neuf victoire. nee na amoo defet man suma ma soyoon sax du am defet ndax am na luñ ma envoyé ni ma sa waay nee na daanuwul nii man du ma sax duut baaram ci lool sama yoon neena nee na man loolu laa jàpp da kon yàlla naa nekk man ki koy daanaat waaw. man su ma déggee sax moom daf na am defet te ne ki koy njëkk a ah waaw moom loolu la nee na da yàgg si yoon bi moom dab la. waaw Alboury maanaam du ay question de yàgg ay yoon lam moo demee noonu lam mënul daan ñëpp mënul nekk anyway xam nga li ma la man 2015 la commencé daan ba lii nii 2019 fii may doog a daan waat 2015 xaw ma 2014 tegale sama ginnaaw laalu suuf ma toog ay 5 ans daanu ma nga ñëw benn làmb daanu mais tamit làmb maanaam amaana su ma soñoon damay bëre ba tekki sama ngemb kenn du ma daan mais làmb kenn mënul dajal ñëpp da ngay daan ñi ñii daan la si amay dégg nit nga daan ko taxul nga mën ko nit daan la taxul nga mën ko lamb des fois nga jekkati jekk jekkati bi nga xam ne bala ngaa jekkaat làmb ji jeex incha ma dégg maanaam affaire de làmb la rek tey maa ngi ñaan yàlla sama combat ak Alboury yàlla may ko wér may ma wér bugguma yàlla bu yàlla bu ko sëriñ jàpp ci làmb ji yàlla bu ma sëriñ jàpp ci làmb ji arbitre ñu su prép fi arbitre bi tegoon loxo bi bu mu ko fa tegg te neewuñ ruñ ko mu dajee kon da ngaa fas yéene arbitre doo loxo nga samp jaaga non mais Alboury maa moom Alboury ku ne xam ne champion la moom loolu lay bëree ah. ku ne xam ku xam jara tamit xam ni man mooy loolu xam nga man loolu laay bëree su bëggee dañuy samp su suul tànk yi woo gars ñu gas suul tànk ndax maanaam amaana man man noonu laa jàngee bëre quoi xam nga li ma la man man noonu laa jàngee bëre man loolu laa jàngee bëre xeex bi mooy loolu quoi fii bi nga gën a favoriser nga bëre. non man lépp laay def xam nga li la maanaam man. man maanaam boo doon tëj fii nii arène bi ba mu daj làmb nga tëj ci biir ne quoi nga ni ñi gën a ñeme ñooy génn barki alxuraani karim su ma jiituwul si bunt bi far force ku jiitu ba may topp sa ginnaaw booy génn damay la ngaama sax si yow génn lamb bu doon bu doon fit dong mooy maye saa yu ma demee damay jël li ma am ñëw del si. kon su ma déggee si wax da ngaa ëpp alburi fit dàq ko bëre ëpp dàq xeex wala. ma góor yàlla kuy euh, góor ëpp ma fit xanaa xanaa am lu may jomm ma am jomm jomm quoi ma ne jomm naa def li nii nii quoi mais maanaam bu dee fit rek maanaam du ma nangu doomu aadama ëppale ma ko si àdduna. combat sa diggante Albouri buñ dindee xe bëre teg nangu ngaa taxaw jaagaat Albouri. da koy laaj ba xam loolu nangu ko ndax Albouri kaaw fi kenn ci làmb man maa ngi trois kaaw ci làmb kaawul kenn. man dama lay dóor ba ngay bëgg a toog sax ma ma tonni la ni la kaay day teel a jeex quoi ndax damay bëgg a wane mbër yu boo gisee nanguwuñ bëree jar nee nañ jar dafa soof da da ngay ba bay bëgg a xam li ma la bëri lu bëri loolay tàdd sa sama làmb ko ndax nee nañ sa waay da ngay bëree bëree bëree bëree bay nagam ndax parce que man damay entraîné caaxaanuma anyway a xam nga xam nga munoo ay gars yi nekk sa ginnaaw ku mel ne Xaarim Dukure doomu Yaasin Dukure ah Lamine Ba di jàpp si affaire yi ay mbay laax xam ga Baye Birane Sow Mbacké Kassé gars yi ay xaarim Kassé sama doom yaay nekk Italie mama pen borom Turquie ah ngay ñëw si làmb di wane ay affaire yu ñàkk fayda Pape Seck sama doom yaay yërës ma ndékki ah leneen ba mooy loolu kon man pourquoi may ñëw di di wane ay affaire benn ay lii nii na làmb ji ñëwee ma ci ñàkk fayda. Dakar la ak moom nga man la Albouri làmb ji ñëwee mu si ñàkk fayda ñaanu ma la si cent franc te du ma la may fifteen. lu la may. lu ma may ma yóbbu ñaanu ma ko ma du ma ko ñaan déggoo mën naa ma may ñaanu ma ko li ma sox li ma bëgg laa dem jëli incha allahu rabbi ci kattanu yàlla. su ma déggee sax sarax ndongo daal la ba waaw waaw du ma yalwaan sax damay ñëw rek tibb li ma bëgg a tibb lekk ba suur xam nga da ngay ñëw yalwaan sarax ma buñ la saraxee da jël. bu la saraxul nga jaay doole mais man du ma fa nekk sax naan la lii dama ñëw rek foxati lu ma soxla incha allahu rabbi waaw. waaw maa ngi woo uh, waa Pikine yëpp di woo waa bay bi gars yi mafia bi di waaw ah xam nga di woo waa Pikine yëpp di woo waa cere ji waa ban bi waa beede waa curuba waa café waa daaray géto waa ridis waa espar yeew zeng daaru xudoos teranga xam nga Pikine yëpp maa ngi leen di woo bi yëpp xam nga di woo ku si mel ne Xaadim Dukure doomu Yaasin Dukure ni ko na ñëw jàpp si làmb ji quoi sama grand yàgg na say jàpp Xaadim maa ngi woo bu baax Mbacke Kase maa lay sant bu baax gis naa ni ngay def si jërëjëf quoi xam nga ku mel ni Layine Ba day sonn si man di si jàpp mbay laax bay biraan xam nga sama gaay yi ma yor ay Gëw Sow ay Laay xam nga gaay mooy loolu quoi Ibu xam nga Pape Diop gaay yëpp ñuy sonn ci affaire yi quoi xam nga maa leen di sant bu baax ajuma bu espoir maa koy woo ci combat bi mu ñëw jàpp si teg ci loxoom quoi ndax xam ne affaire bi mooy loolu quoi na si gars yi jàpp fi mu toll nii gars eh, tant que ñu ñëw jàpp si lii moo defaral waaji wan ko lu cur maanaam bu dee liggéey lu metti ak fula ak fayda ak jom ak bëre mooy maye man gëm naa ne làmb ja nasonal nationale su ma demee keroog la 26 du ma fa yàgg damay dugg jël li ma moom génnaat. promoteur bi di ko ñaanal Jibi Pogba maa ngi koy ñaanal ndax li mu tëgg xamu ko. te bu bis boobaa bula vingt 26 eh, dina xam ne li mu tëgg xamu ko. drapeau karamba fii la jëm drapeau karamba incha allahu rabbi soobee yàlla bu arbitre bi nee pip dinañ xam maanaam kuy wax ak kuy jëf duñ benn incha allahu rabbi Alboury nag maa ngi lay wax ni waxal sa wax waxaaleel ma samay wax bu su làmb jëf ma jëf sa jëf jëfale sama jëf. ma ne ko waxal say wax waxaaleel ma samay wax bisu làmb jëm ma jëf sa jëf jëfaale sama jëf. say wax du samay loolu samay wax la man jare ma maa wax loolu. waaw. Alioune nag ku mos a yàq ay waxam ni ko defal. waxam Alioune pare ma pour nekk di ay yàq ay waxam jëfam laa yàq. ki doom séeréer la. di woo nag xoolal. yow nangoo yàq ay waxam jëfam nga. noo xoolal maa ngi woo waa Lambaay. waa Lambaay quoi di woo waa Pout bu baax ci làmb ji xam li ma la wax. di woo waa waa Kolda waa Saare Kéemu Saare Moussa Saare Saare Yoba ah maa ngi leen di woo waa Casamance maa ngi woo sama gars yi nekk foofu yëpp bu baax maa ngi leen di siyaar bu baax di leen wax ni nañu yokk loxo yi yàlla yàlla euh, arbitre bi ni prip mu des sama diggante man ak Alboury ma won ko lu teg ma ma décoder code bi li ñu noonu nee ko jara nee na li ñu codé sim na code bi dina décoder code bi wuy ma code bi jara nee na sib na code bi dinaa décoder code bi te dina du ma ne la dinaa décoder code bi war nga xam ne dinaa décoder code bi waaw kañ dinaa décoder code bi maa ngi nuyu nee ko maa xoolal maa ngi nuyu waa waa waa waa Kaolack yëpp maa maa ngi nuyu waa Kaolack jara fi mu toll nii combat bi dafa am lu ma jaral ko quoi moom nee na am na lu mu ko jaral mais man aussi am na lu ma jaral maanaam tegu ma ko fenn xam nga fan laa ko teg. ci fula ak fayda ak liggéey lool loolu laay foofu laay waxee fula ak fayda ak liggéey job bu ñu yeggee si bis ba di nga xam ne bu ñu nee boo ne fuuteet sànni yére jaar ni mu ne fuuteet sa yére sànni jaar nii dinañ xam ne booy bi kaful woon waaw xam nga li ma la yaa ngi dégg loolu bu arbi bi nee pip ba mu simi yére sànni na le moo moo woon moo woon ne ko moo woon ne ko bâtiment balay taxaw fondation ba day wow koŋ bâtiment balaa taxaw fondation ba day wow koŋ samay waxa maa pare pour wax loolu waaw. waaw maa leen di remercier bu baax a baax waaw wasaare lamb di leen siyaar bu baax di leen jox sa wàcc waaye di leen wax ne rendez-vous bi le 26 la bu kenn tardé incha allah arène national di la bëggee waat bu baax baax di la ziar moom jërëjëf di bëggee nag vite fait et bien fait xalil cak maa ngi koy bëggee bu baax a baax. jaara kase. jaara kase. waaw. <laughs> ragal de